jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci euh, rajo réew mi FM 97.5 mbokk ñu leen di nuyu bu baax a baax dellu am mbégte dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu quinze h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ma du Diaw Diall mu nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu dellu am mbégte daal di dalal. Euh, Boubacar euh, balde euh, ñu gën koo xam ci Sarkozy mu bokk ci parti socialiste bokk ci bureau politique bu parti socialiste waaye tamit moom mooy coordonnateur IRAS di initiative de réflexion et d'action socialiste Boubacar Baldé Sarkozy maa ngi lay nuyu waaw maa lay delloo nuyu di la gërëm di la sant di remercier l'administration de de la radio. Mhm. di remercier aussi tous les journalistes di la remercier aussi. Euh, voilà si invitation bi. jërëjëf euh, Boubacar Baldé euh, Sarkozy lu waral Sarkozy ji bala ñuy avancer pour ñuy déglu mën a comprendre ñu doo ko jàll. waaw xam nga daanaka moom c'est c'est devenu un nom politique moom la ñu xamee. Mhm. boobu ñu ma ko ñu ma ko ñu ma ko tuddee toujours dama koy répéter Moussa ku tudd Moussa Taye. Euh, nekk conseil politique xalifa Sall moo ma joxoon tur boobu. boobu ñu ngi woon ci MES sur le mouvement des élèves étudiants socialistes. alors j'étais un peu trop bouillant quand même alors euh, très dégourdi aussi donc euh, rien ne se faisait pratiquement dans ce dans ce que nous faisons à l'époque sans ma présence voilà donc euh, c'est quelqu'un qui comptait ci man dans ces combats politiques à l'époque ak man Lamine Diatta donc euh, tur bi daal nii la ñëwee. alors finalement parti bi jàpp ko ba yàlla ndem si yàlla Ousmane Tanor yéen dégg ko mu ne ah oui en tout cas sa cole bien avec euh, avec son tempérament. Mhm. voilà e depuis loolu Tanor tamit moo wee ndeysaan Sarkozy. nii la tour bi ñëwee Tanor nag yàlla def moom moo gën a accentuer tur bi. Mhm. waaw parce que keroog je me rappelle premier comité central bu ñu ma joxee parole ñu ne Sarkozy ma wax ba pare mu ne ah oui ça bien avec son avec son tempérament. depuis boobu moom it ndeysaan euh, Sarkozy rek la ma doon woowee. d'accord euh, yow yaay coordonnateur euh, IRAS. Mm-hmm. ba pare nga bokk ci bureau parti socialiste. Mm-hmm. lan moo waral IRAS. waaw IRAS lu ko waral lu tax mu juddu mooy dañuy def constat suñu ànd ak Benno Bokk Yaakaar suñu ànd ak le président Macky Sall suñu ànd ak APR. lu tax ma ne Benno Bokk Yaakaar parce que Benno Bokk Yaakaar coalition la. lu tax ma ne APR parce que APR parti la. ci biir coalition bi. ci biir coalition bi la président Macky Sall c' est la personne morale de Benno Bokk Yaakaar nekk en même temps aussi euh, responsable de parti APR. ñu xam ne de 2012 bu ñu ànd ak APR ba léegi parti bi dafa gën a affaiblir lépp dafa gën a deltu ginnaaw parti socialiste lépp sax lu ñu amoon ci ci responsabilité ci honorabilité daanaka le président Macky Sall ak ses ses allier de avec ses euh, comment dirais ses militants de daanaka dañ ko fokkati dañ ko nanguwaat. donc loolu est-ce que du lu lu ngeen leen yombalal. oui c'est-à-dire euh, yombalal comprendre c'est-à-dire. maanaam yéen ko nangu. oui mais loolu la cest à xam nga wuure nu ma la gisee noonu la lay ñawale mhm. voilà non daf ko gis si ñun. daf ko gis si ñun mu am nga xamante ay responsable yi nga xamante ne mu yaakaar ne mun na leen utiliser utiliser na leen parce que def na leen dans sa poche. ñii il a cherché à diviser le parti ñii mu jël leen yóbbu leen kaso ñii mu jël leen jox leen ay responsabilités donc c'était d'abord une manière de diviser pour régner il avait réussi parce que partie bi mooy loo xam ne ce qui a prêté le alors. parti bu toll ni Parsolis mu dem ci alliance avec un parti qui vient de naître mais ñun war nañu xam naturellement que le président Macky Sall l'APR ne peut et ne pourrait s'adosser du Parsolis pour avoir un parti loolu xamoon nañ ko et c'est que toujours le président Khalifa Sall a toujours dit musul d'accord ci ànd bi donc c'est un c'est c'est une coalition contre nature voilà et je me rappelle à l'époque euh, beaucoup de camarades n'ont jamais été d'accord du de 2019 comme yaakaar nañ ñun dañu bokk ci ñu créer benn bokk yaakaar parce que loolu lañ doon théoriser ñu yaakaar loolu ñu ne ok mais je pense que normalement 2012 suñu ànd ak président Macky Sall dafa dafa jeex ñu dem lu ñu amoon ci mairie mu nangu ko lu ñu amoon si institution mu nangu ko parce que bu ñuy commencé ak Macky on était à trois ministres mu nanguwaat lépp. lépp nanguwaat mairie la même chose on avait presque la totalité de collectivité euh, territoriale du Sénégal. fépp fu maire bu nga xamante ne socialiste boo fa nekkoon maire Macky Sall le président Macky Sall fexe na ba nangu ko. ci Sénégal ci Sénégal implanté fa. waa APR waa APR. Dakar mu amoon jafe-jafe ci moom mu yaakaar ne dakaar bu bu bu bàyyee xëy na Aliou ak Jean Baptiste ñooñu mun nañu renverser tendance bi pour mu gagner Dakar c'était c'était c'était peine perdue parce que xamul na Dakar c'est un acquis y a ce qu'on appelle un acquis un acquis électoral. de kii. de de Khalifa Sall du Parti socialiste Khalifa Sall moo ko liggéey ça c' est un acquis électoral. acquis électoral nag balaa c'est-à-dire que munoo ko munoo ko munoo ko défenestré nii c' pas possible. et il ne bon il n'avait pas compris mu jël leen utiliser leen monter leen les uns contre les autres pour yaakaar ne xëy na bu leen. bu leen defee à la tête euh, de cette euh, coalition ñoom dañuy gagné Dakar. Euh, Boubacar balde Sarkozy si sa biir wax danga wax ne mairie bu ab socialist nekkoon. Mhm. président Macky Sall dafa fexe ba dindi ko fa. Mhm. dugal fa ay dugal fa nitam. Mhm. ba ngeen ànd ak moom joxoon na leen trois ministres. dindi na benn ba. li ngeen amoon si député dafa gën a wàññeeku. mais loolu lan moo tax yéen euh, ñi jiite parti socialiste seetaan loolu ku ci mel ni Aminata Mbengue Ndiaye. Mhm. mooy xam nga euh, euh, Abdou Khadre bu ma sañoon sax du ma wax waxu waxu poste parce que ñun au send de IRAS poste taxuñoo jóg responsabilité au sein de Benno Bokk Yaakaar bu jógee ci Macky Sall taxuñu jóg intéressé wuñu ko lu ñuy soxal mooy parti bi lu ñuy soxal mooy l'avenir du parti. bu ma sañoon tey lu mu ñu joxoon yëpp na ko nanguwaat ñu te ko defaraat suñu parti bi. hôtel retrouvailles de la famille socialiste. waaw ah lenn c'est la c'est le seul issue pour l'avenir du parti. mais s'adosser sur des sur des intérêts ah pour que Macky woo la responsabiliser mais man ñaata promesse la am. ña mën na leen si bu fekkee loolu ngeen yaakaar ci man pour noppi loo ma vous perdez votre temps sama rôle dama koy jouer pleinement. ñun am na nu yare culturellement engagement dañuy dem ba mu sës am na nga xamante ni mënuñu ko. li ma la wax sànq lu tax ki jiite parti socialiste provisoirement nangu loolu. oui xam nga euh, loolu ji commencé wul ci Aminta Mbengue Aminta dafa ñëw fekkee ko Aminta intérim lay assuré mu ngi commencé ci feu Ousmane Tanor Dieng moom dafa jàppoon ne bokk na suñu sos Benno Bokk Yaakaar donc luy tas bennoo Bokk Yaakaar du jóge ci moom. moom il était formé comme ça il savait avancer mais il s'est pas reculé na man ci ñu ma yar ci politique bokk ñu ci ci ñu ma accueillir ci parti bi day nag daanaka moom laa xam ba mu ñu ci parti bi Tanor laa xam mu xaw moon keneen donc nekkoon ci loolu 2012 2013 2014 man ma dem këram ma ne ko suñu ànd ak APR bii gisuma ci avenir parti socialiste ma wax loolu dans son salon mu ne ma le moment venu on en discutera et on prendra une décision politique ma ne ko man gisuma ci avenir parce que ñii yoruñu parti daanaka ils ne pa pas organisés amul chef amul responsable au niveau local donc il ne s'arrête que sur pour détruire parti loolu laa mës a gëm Abdoul Khadre loolu laa mës a gëm man mosuma gëm coalition bi et mon combat je l'ai toujours mené à l'intérieur des instances du parti comité central bureau politique ñoom xam yëpp fan la ñu ma xamee je prends la parole, je dis ce que je pense. Je ne suis pas dans de l'arbinisme politique. Je ne suis pas dans l'opportunisme politique intéressé parce que maa ngi sant la bu baax ni di di gërëm samay waajur. waaw xam nga nit gëm sa gëm gëm gëm sa dafa am solo. boo yaakaar si àdduna yëpp sa avenir yëpp mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi dépendre ci politique pour échelle politique mais. effectivement mais parti socialiste. Euh, dañu gis ne parti bu ànd ak Macky Sall rek. presque day suulu. ndax duñu gis euh, tournée yi ñu doon faral di def moo xam jeunes yi moo xam femmes yi du faral di am ci parti yi nga xam ne ay alliés Macky Sall lañ lu waral loolu. mais mooy lu ma la wax ni c'est c'est fait exprès Macky n'a pas intérêt que les alliés maanaam euh, il n'a pas intérêt de rendre foro aux alliés et xam nga lu mu xamuloon Macky Sall c'est un c'est un c'est un apprenti politique. ma Sall Macky Sall non non dafa ànd ak yàlla rek yàlla fal ko président Macky Sall n'est pas dafa yaakaar ne en affaiblissant les alliés ça va rendre fort l'APR mais affaiblir allié bu mel nii par solis mais se rendre faible le Benno Bokk Yaakaar et voilà les résultats voilà kon yow da gis ne danga nga est que jàppoo ne kon ñu bari ñu bokkoon parti socialiste ñoo xam ne d'accorduñ ci ànd bi dañoo génni dem fekki ñu si mel ni ñoom Khalifa Sall. jàmbaar nee naa la man musuma ànd ci alliance bi. Mm-hmm. loolu je l'assume. Mm-hmm. musuma ànd ci alliance bi. Mm-hmm. te depuis 2012. 2012. 2014. 2012 sax laa wax 2012. laa géej wootal Benno Bokk Yaakaar. te maa ngi ci parti socialiste. 2000. 2012 laa wax. waaw lu tax sama wooteel Benno Bokk Yaakaar. lu tax ma waxeel woteel président Macky Sall deuxième tour ngir yàlla ak jëmm Ousmane Tanor Dieng moom moo ko ñaanoon. a léegi voteeloo leen. xalaatuma ko xalaatuma ko je ne voterai pas pour le président Macky Sall pare naa ci kooku kay je l'assume. waaw mais et je n'ai jamais mus dama ne 2012 laa la wax nii 2014 ñu dem élection locale Kolda le parti joxe instruction pour ñu ko dem dans le cadre du Benno Bokk Yaakaar. bu ñu demee moi en tant que responsable politique au niveau local mais on n'a pas été pris en compte ñoom les responsables locaux ñu yaakaar ne le le le maanaam le Benno Bokk ñoom ñetti la c'est le ministre Moussa Baldé c'est Bibi c'est Mame booy ainsi de suite les alliés ça c'est après après dañ leen di jox voilà les restants mais man je on un homme responsable bu ñu yegg si yàlla def ñu dëggoo ak Mame Boye Diao ñu créer lu ñuy wax suñu alliance de force du progrès au niveau moom la ñu demee local yi. gagné mairie bi. 2014 non 2014 dañu gagné sax d'ailleurs ñu sàcc dañu gagné woon ah loolu mooy réalité ñu dem encore élection locale bii passé ñu créé suñu encore suñu alliance <laughs> au niveau local ah ak euh, comment dirais-je moo ñu joxoon euh, moo ñu joxoon euh, kii comment dirais-je Diop moo ñu joxoon récépissé. ñu gagné mairie bi sans le Benno Bokk Yaakaar. avec Mamboy Diaw avec sans le même ban le Benno Bokk Yaakaar et c'est là où je lance un appel à Mamboy qu'il se ressaisisse qu'il comprenne qu'il n'est pas dans la dans les tablettes de Macky Sall il a intérêt à rester un leader fort ça il a intérêt ça bref c'est des conseils de mais c'est pas important ce qui est important pour moi c'est l'avenir du Parti socialiste mooy lu ma wax nii rek élection législative yi passé ils ont fait des investitures sans consultation sans concertation encore il y a que les apéristes qui sont investis de, de la députation ba ci suppléants yi y en a pas un allié mais on va vous attendre ici ñu dem ni local législative par la la la wax ni de ñu ñu dem Kolda on a voté contre nous avons tous voté Yewwi Askan Wi même des apéristes ont voté pour Yewwi Askan Wi mais loolu c'est un manque de respect au parti socialiste. mais mais mais au niveau national. Oui. est-ce que am na considération ci élection euh, législative yi passé yu yu bennoo def est-ce que bennoo bokk yaakaar njiit li président Macky Sall est-ce que bi muy defar liste yi tenir na en considération les les alliés comme que su mel ni ñu si mel ni parti socialiste. oui loolu laa la wax ne xam nga euh, APR euh, à un seul chef c'est Macky Sall moo defar liste yi te moo ko defaree nu mu ko neexee. bennoo yi. Benno bi moo ko c'est normal mais c'est pas normal c'est ça qui est insultant et frustrant un parti comme le Parti socialiste nee na la man musuma gëm le Benno Bokk Yaakaar la le Benno Bokk Yaakaar la euh, arrange que les opportunistes qui sont dedans qui sont qui sont des qui ont qui ont des intérêts à défendre mais pas l'intérêt du parti moi je suis un militant Abdou Khadre je suis un militant du Parti socialiste c'est pourquoi j'ai choisi d'être libre j'ai été fonctionnaire j'ai quitté la fonction publique pour pour vraiment euh, euh, euh, rester dans ma liberté d'expression c'est-à-dire que dama gëm liberté sama àddina man góoma leneen donc je reste un militant du parti mais yéen parti socialiste nan ngeen mën a seetaane président Macky Sall mu toog fi mu toog ci palais ba jël big ak fëyam di bind ku ko neex di génne ku ko neex loolu laa la ko ni c'est à l'image c'est à l'image de la direction du parti ni mu leen gisee noonu la leen ëwale ma gis aller très loin sax il est allé jusqu'à leur demander la carte blanche jox le ma carte blanche jox carte blanche donc ils noo rien à se ñoom ñoo jox la président Macky Sall carte blanche pour kooku def lu ko neex def na lu ko neex tu prends aujourd'hui des responsables régionaux d'union régional nga leen di investir nga def leen suppléant au détournement d'un militant de de de, de l'APR qui vient d'arriver à la base mais c'est insulter le parti tu vas à Ziguinchor ku mel ni Bakary Bassène architecte il n'est pas investi il n'a jamais été pris en compte dans le Benno Bokk Yaakaar et c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour Benno Bokk Yaakaar qui s'est toujours battu pour le Parti socialiste tu viens à Kolda idem tu vas à Sédhiou d'ailleurs à Sédhiou on avait un honorable Abdou Camara mais bu mu décédé mais mais lu moral voudrait quand même la déontologie politique voudrait que ñu delloo poste bi waa Sédhiou parce que on l'a donné un post de haut conseiller au nom de la région de Sédhiou bu mu décédé dañ jël post bi avec des manipulations de certaines personnes de la direction ñu jël poste haut conseiller bi jox ko jokk non non jox ko personnalisme waa Tivaouane jël poste bi delloo ko Tivaouane on m'a même dit moo def loolu le moment venu je vais le dénoncer publiquement en BP loolu yëpp c'est de l'incohérence au moment où il y a des mais mais Sarkozy. non mais Sarkozy oui. oui mooy ma très bien c'est-à-dire que loolu gis nga frustration yi mel noonu daanaka dafa dafa xam nga man sax ñun sax ñun ñun waa IRAS ñun ñun ñoo feeñ. dama ne aujourd'hui quatre-vingt-cinq pour cent des membres d'une région et de coordination ils sont avec ils sont avec IRAS. parce qu'ils se retrouvent dans ce que nous faisons par principe. kon frustration bi bëri na si parce que. bëri na ma ne ñu feeñ ñu bañ a feeñ ñëpp man la ils sont dans nous maa la koy wax xara rek. nga dugg le moment venu. nga dem je suis dans une logique nga dem Kaffrine Ablaye Wilane qui est secrétaire général d'union régionale qui est. porte-parole du parti porte-parole du parti qui est président du conseil départemental nga def ko suppléant d'une liste suppléant. mais c' est extraordinaire. jël mairie bi après mairie bi. jël en ensuite. tu viens à Dakar ti prends Alioune ti tu prends Jean Baptiste vous les amenez frigo tout en sachant que c'est perdu d'avance la guerre à Dakar mais avec cette différence de combien de mille voix comment quel miracle Abl euh, Jean Baptiste allaient kii pour pour développer Barthélémy Dias à Dakar c'était impossible. et aussi. la même chose on prend Fallou kii est un maire socialiste on impose on appérite ñoom ñu ngi ñun daal ñu ngi nañ toog di seetaan ah c'est des vieillards là qui sont là pour les intérêts nekk fii di bëgg a sacrifier parti bi on gère on gère jusqu'à il va à Nguéniène mhm. lu ma gën a métti métti ne serait-ce que par respect à la mémoire de Ousmane Tanor Dieng le président Macky dem Nguéniène mu jaxase carte yi foofu mais Nguéniène a toujours été socialiste il aurait pu favoriser le, le, le candidat socialiste pour au moins que la maire de Nguéniène au parti socialiste à un poste de Tanor. Mais le président Macky Sall ne l'a pas fait. Ce qui s'est passé à Nguéniène, c'est une catastrophe. C'est un inconnu qui a eu la mairie. Hein? Qui sa candidature a été préfabriquée, financée au palais à Nguéniène. Je, je, je lance un appel aux camarades socialistes qu'ils se Macky Sall gëmul parti socialiste Macky Sall gëmul les responsables du parti socialiste lu mu gëm mooy ses intérêts personnels et son parti et d'ailleurs jëfe na ko wax na ko. d'accord mais Sarkozy. Oui. est-ce que lii nga wax ni yéen a ngi koy waxtaanee ci bureau politique bu parti socialiste. merci xam nga euh, Abdou Khadre lu tax sama sawar euh, yàlla xam na ne sa invitation parce que je vois quand même que tu as une culture politique maa ngi doon dem nii séminaire à sali 11h lay commencé. mais j'ai essayé pour ma ñëw fii parce que xam nga xam nga aussi euh, journaliste gëstu dafa am ci solo ci journaliste hmm. euh, y a pas de sujet tabou loolu il faut reconnaître au parti socialiste hmm. bureau politique bu ñu xasee ba fa toog y a pas de sujet tabou y a pas de que y a pas de rapport en y a pas de rapport d'hiérarchie bu ñu xasee ba toog bureau politique ñoo tolloo amul ministre amul député amul nangam dañuy waxante lu ñu neex et c' est ça le fort du Pastef c' est de la camaraderie mais da koy wax luñ ko tenir en compte c' est un groupuscule d' individus qui sont là à défendre leurs intérêts mais c' est ça qui est catastrophique aujourd'hui mais j'ai dit que Aminata la nañ ko jàppale lii daf ko bett elle s'est pas préparée à ça xamuloon nu mu demee et c'est pas familier à ça nañ ko jàppale mu jeexal intérim intérim bi ñu dem à un congrès extraordinaire instant bi y le congrès extraordinaire qui peut régler les problèmes du parti. Hmm. pas un problème mais le parti traverse une crise catastrophique. d'accord mais mais mais euh, Sarkozy. oui euh, tey euh, jeunesse parti socialiste. amoon nañu député. mais jamono jigéen ñi euh, wax IRAS ngeen di wax seen i doléance tey ku si mel ni euh, Mame Bounama est-ce que fekk si woon na leen si xeex boobu. ndax jamono ji gis nañ ne moom investiruñ ko wala fi ñu ko investir tey nekkul député lan moo nekk seen posture ñoom. on n'a pas de jeunesse socialiste malheureusement. ah bon le mouvement des jeunes socialistes n'existe pas il n'est pas vivant il n'est plus attractif ñoom ñi xam nañ loolu ils nous reconnaissent nañ loolu ñoom ñoom seen bopp loolu mooy dëgg donc aussi. jeunesse socialiste dafa dee. non amul amul c'est ça c'est c'est si ce qui allait même être la surprise c'est d'entendre que les jeunes socialistes c'était ça qui allait surprendre beaucoup de militants il n'existe pas loolu mooy dëgg contrairement à la jeune fille qui a quand même euh, qui a fait preuve d'engagement et de générosité politique entre ñoom ci lu ma dégg hmm. donc elle elle a été investie et puis elle aussi de justesse ñoo kooku au moins elle faisait des des activités des actions donc il y a des individualités ku mel ni par exemple le jeune Amadou Sow kii de la Médina moom mooy nekk le responsable départemental des jeunes de la Médina un garçon très engagé très dynamique mais tey bu ngeen décidé dem ba décider du ngeen investir le responsable national mais vous prenez le jeune département Dakar ngeen investir ko un jeune bu mel nii Papis Djiko qui est le responsable régional des jeunes de Kolda moo ma remplacé d'ailleurs mais waroon ngeen ko jël en compte même si la tête vous le parti ñëpp à xam nañ ne doxalul loolu moo nekkoon logique parti bi loolu la xamoon. mais defuñu ko. mais tout ça xam nga lu yëpp lu ko waral maanaam mooy euh, moo yóbbaale ma bi. yóbbaale ma bi xam nga xam nga ku ëmb sa sutura. ku ëmb sa. sànqal sa sànqal. ëmb sa sutura. et en politique le camarade xalifa sax yàgg na wax loolu plein BP. plein BP. et le camarade euh, Mardiouf aussi il faut le reconnaître lui c'est un cartésien moom cest à il est un de principe donc loolu moo waral IRAS jàpp ne dañu war a jóg parti bi waruñu ko bàyyil ñii parce que ils ne sont plus d'actualité xamatuñu lu xew d'accord jërëjëf euh, Boubacar euh, Baldé euh, Sarkozy mm-hmm. yow nga bokk ci parti socialiste bureau politique mm-hmm. fan yi dañoo taxawal benn benn gouvernement bu bees. Hmm. Euh, est-ce que yéen waa parti socialiste sentir ngeen seen bopp ci guvernement bu bees boobu ak tamit ndax biñ koy taxawal ndax jàpp nga ne concertation am na ci. oui xam nga euh, Abdoul Khadre euh, nee naa la man yaa tax sax ma ci wax parce que man samay principe lay doxee ak principe IRAS. principe IRAS mooy lan mooy nañu génn ci Benno Bokk Yaakaar. si seen yoon nekkul ci gouvernement génn ci complètement gis nga bu ñu ma déggloon sax ñun du ñu am représentant dans le gouvernement. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne sont omnubilés que par des postes. yaakaar na seen àddina ci poste la yem. c'est-à-dire ils ne peuvent plus faire autre chose que ça. tu veux parler de Serigne Mbaye Thiam. non non je ne personnalise pas parce que on m'a demandé de ne pas personnaliser mon mais lu mu wax ne tey ñun au IRA ñun au sein de IRAS on n'est pas là pour des individualités nekkuñu du mouvement de soutien de personne il y a que le parti qui nous intéresse. mais nag la logique aussi voudrait effectivement qu'il y ait une rotation. parce que oui loolu mooy dëgg. Macky a apporté des changements. waaw mais mais même Serigne Mbaye Thiam ñoo ngi wax ne 2012 euh, ba léegi gouvernement bu ñëw mu bokk ci. oui xam nga bu fekkee ne Serigne Mbaye dax ma dëggul woon man si j'avais des conseils à donner je leur ai demandé de ne pas accepter sa reconduction. lu tax. Euh, pour la stabilité du parti pour la stabilité du parti. je leur ai conseillé de ne pas obtenir sa reconduction. Et pour son avenir même je leur ai conseillé la reconduction. mais Serigne Mbaye Thiam est-ce que am na avenir politique. loolu. moom euh, politiquement non loolu ñoom ñoo ko xam parce que aussi. avenir luy ñëw luy ñëw suba yàlla rek ko xam. mais luy ñëw suba mais représentativité euh, nit soo ko xoolee di nga xam ne kii am na avenir politique wala amul. waaw cest à xam nga loolu du ma ci dugg. pour le ma lu ma Serigne Mbaye Thiam loolu laay wax ci Alioune aussi. bu ma amoon conseil moo koy bu leen di jox c'est de leur demander à ne pas accepter leurs convictions que se concentrer à l'avenir du parti ne serait pour les quinze mois qui qui restent ñoom ñaar yëpp ñu génn ci gouvernement bi ñu refuser la reconduction ñu concentrer wu au retrouvailles de la famille socialiste pour un meilleur avenir pour le parti socialiste parce que parti moo leen jox lépp lu ñu am si aujourd'hui il constitue un problème nit ñi jàpp ne waruñu la reconduire nit ñi jàpp ne ah yàgg nañ ci gouvernement bi nii jàpp ne que parti boobu dafa war a génnaat mais je pense que il était temps quand il était temps ce qui est valable c'est les ministres et aussi valable pour ceux qui sont ceux qui sont dans des dans des postes de nomination PCA directeur loolu mooy dëgg ñooñu aussi du devaient rendre le tablier contrairement à ceux qui nga xamante dañu am des postes ñu ñooñu base moo leen élire ñooñu mu ñu leen wax nañu nañu nañu nañu nañu nañu nañu rendre seen seen légitimité mais képp koo xam ne poste nominatif nga am lu ñuy reproché Alioune Ndoye lu ñuy reproché Serigne Mbaye ñu ñëpp ñu bokk ñu bokk ko ñu démissionné andoo booba nag le parti quand dina jël sa responsabilité ñu xam ne ne on a un avenir à gérer ensemble donc problème bi ñun au sein de IRAS loolu mooy suñu préoccupation ñii nañu fàtte seen bopp parce que Tanor dafa mës a fàtte boppam tànnoor de 2000 à 2012 il a fait 12 ans d'opposition mosu jël ay responsabilité et pourtant Abdoulaye Wade a tout fait pour donner des responsabilités pour mu ñëw bokk ci gouvernement d'union nationale. waaw ah, mais mais mais Sarkozy yow bureau politique da wax au nom de d'IRAS wala au nom d'un membre du bureau euh, parti du bureau socialiste. je parle au nom de IRAS en tant que coordinateur national de IRAS parce que lu may wax ni si préoccupation mémorandum la bokk d'ailleurs récemment on a tenu une réunion. réunion préparatoire à l'organisation d'un séminaire xam naa ne bu ne pas il information euh, semaine bale passé séminaire boobu IRAS moo ko proposé woon à travers un mémorandum ñu bind mémorandum ñu distribuer ko à la direction du parti à la secrétaire général et à tous les responsables nationaux ñoom yëpp ñu saluer la la la la la qualité vraiment de ce document qui est ay beaucoup de recomm avec beaucoup de fortes recommandations qui sont d'ailleurs parmi les recommandations, et d'abord euh, la réforme, réformer les textes du parti. Deux, le rajeunissement des instances, le retrait du parti dans Benno Bokoyakar. Hein? Alors, et la candidature du parti pour, à l'élection de 2024, vous voyez, la tenue d'un congrès extraordinaire. lii mooy forte recommandation au sein de IRAD moom la ñu def ci document bi jox ko direction des partis bi pour ñu réfléchir si ensemble ñu décider pour ñu dem ci congrès extraordinaire dem ci conclave pour préparer congrès extraordinaire pour que parti bi amaat son indépendance mais par notre grande surprise bu ñu demee ci réunion bi seen ay passé terme de référence ñun ñoo ko préparé ñu préparé terme de référence yi organiser terme de référence yi à basé ko sur un document une documentation jox leen ko ñu jël terme de référence de référence yi ko ah ñu responsabiliser ko une personne à qui je n'ai rien contre contre c'est un grand mais xam naa ne c'est un homme d'honneur kooku d'ailleurs kooku kooku noonu c'est un homme d'honneur je le connais très bien c'est quelqu'un à qui je respecte beaucoup mais je sais que ils veulent le manipuler du ko nit ki nga xamante ne sax moom day day day day day c'est pas quelqu'un qui est dans les combines mais je sais dañ ko manipuler Et en plus, les clips ne voudraient d'ailleurs. Ils sont tous fixes. Ceux qui organisent le séminaire. bu leen jël les thèmes de référence ngeen ko da ngeen koy confier en cadre d'Orifix alors que IRAS a déjà pour fourni les termes de référence fourni les documents à travers un mémorandum loolu mooy indi frustration dans le parti si cette logique continue ñu l'avons nous avons décidé d'organiser notre propre séminaire Et on va inviter tous les militants et militantes du Parti socialiste à ce séminaire-là. Tous les responsables dans ce séminaire loolu loolu et à la même date date bi ñu choisir le 20 et le 21 même date la il a di organiser le son séminaire. où mais le moment venu on on on le lieu on donnera le lieu incha allah donc nañu changer lu ñu bëgg a def nii. kon kon yéen. ñun duñ ci ànd. mais mais parti da ngeen a bëgg am candidat euh, élection présidentielle 2024 incha allah. mais loolu ngeen proposé. mais kooku kooku kooku c'est c'est c'est c'est inévitable. Abdou Khadre il faut ñu am ko. lu combat principal de IRAS la candidature du parti socialiste pour 2024. loolu mooy combat principal IRAS. te incha allah on va y arriver. on va y arriver maintenant ceux qui sont ceux qui ont choisi d'être dans le gouvernement de Macky Sall ils n'ont qu'à l'accompagner ils n'ont qu'à assumer. de l'opposition. mais mais avec euh, euh, amnistie xalifa Sall bi ñuy wax nii tey bu ñu amnistie woon Khalifa ba mu mën a bokk ci élection est-ce que seen combat loolu du ko gën a yombal. Abdou Khadre c'est c'était la dernière volonté de feu Ousmane Tanor Dieng la libération de Khalifa avant muy génn àddina amnistie Khalifa Sall bu ma njëkkee set si Khalifa Sall prison mm-hmm. moom Tanor moom moo mu ngi ci dëgg maa ngi ci fen mu ne ma foo nekk ma ne ko maa ngi sama kër mu ne ma jëlal taxi nga ñëw ma ñëw mu ne ma wax naa Mangane son secrétaire permanent dem seet si Khalifa amoon non mais je le vois un peu hésitant il est revenu pour me euh, pour voir Khalifa dans ces conditions je l'ai compris mais va le voir ma dem seet si ko Khalifa Ababacar Sall ma discuter ak moom un homme xalifa euh, il n'a rien dans le cœur un homme euh, vraiment un homme de foi ànd ak gëm yàlla ma discuter ak moom ci lu ay beaucoup d'heures ma ñëw rendre compte Tanor ma ne gis naa ko mu laaj ma est-ce qu'il se porte bien ma ne il dellu soit foofu encore j'ai demandé à d'autres responsables dem seet si ko Khalifa prison ku mel nii góor gi siis ku mel nii ñeneen ñu bare ñu dem seet si ko maa leen demandé ñu dem seet si Khalifa parce que pour moi c'est le parti si des erreurs politiques arrivent si des choses qui arrivent dans un parti politique mais nañ ko fàtte ñu xam ne ñu yëpp dañu waroo nekk benn pour un personnalisme fort on a vu un acquis avec Khalifa Sall a été maire de Dakar capitale donc ça c'est man foofu lay raisonner moi je ne suis là pour personne nenaaru nen nenu kenn la preuve <laughs> l'histoire donne raison il a gagné même la capitale en étant en prison kaso la gagné capital bi encore li législative yële passé sàcc ko mu mu génnee il a confirmé donc je pense que dernière volonté euh, Tanor dernière volonté Tanor c'était la libération et l'amnistie de Khalifa et le retour de Khalifa Sall et famille et de la famille socialiste pourtant euh, wax na ko retrouvaille euh, famille libérale ñoom ñoo ngi koy ñoo mais ñu ngi koy waxuma mais ñu ngi koy ñu ngi koy une réalité parce que ils sont toujours venus récemment tu as vu Aliou Sow qui était critique envers xam nga Macky Sall amul lu ma ko yekkul les Diagne Fada mais le retrouvaille la famille libérale Macky mu ngi ci loolu te mu koy dox te réussir na ci pourquoi nous on doit être gênés pourquoi nous on doit être méchant à la limite c'est méchant pour certains qui sont dans le gouvernement qui ne veulent même pas entendre parler de retrouvaille mais ils, malheureusement pour eux pour eux mënuñu fees sax néeg néeg aujourd'hui la totalité la majorité des des des, des hommes politiques du parti sont d'accord pour le travail sont d'accord pour le retour de tout le monde y compris Khalifa Ababacar Sall c'est une forte personnalité politique c'est un leader politique qui gagne chez lui ñoom Barthélémy Dias c'est tout le monde est-ce qu'il est politique Khalifa est très politique Khalifa est très politique gis nga gis nga dans le parti là on a quand même des gens qui une forte base politique ça il faut le reconnaître nit loo ko loo ko loo ko mer loo ko bañ rek wax lu yàlla def ci moom Khalifa c'est une forte personnalité politique même Ablaye Wilane Ablaye ko quelquefois on n'est jamais d'accord sur le principes sur beaucoup de choses mais on n'a pas un leader meilleur qu'Ablaye Wilane il a été jeune maire il a été député aujourd'hui il a toujours eu des postes électifs à la base Tu prends Alimane de Paos Koto, le jeune Alimane, maire, député, président du conseil départemental. Mon cher, c'est de force personnalité. Ces gens-là, ils ne sont pas à négliger. Kon parti socialiste ba léegi am nay cadres. Non, on a des cadres politiques qui ont une forte représentativité à la base. la moo des kon. mais lu mu lu des mooy nañu liggéey ci retrouvailles de la famille socialiste loolu mooy dëgg. et je mais dafa am ñu muy am na ñu muy déranger c'est ceux qui sont avec c'est ceux qui sont dans le gouvernement de Macky le moment venu su may xaaral rek moment venu dina leer dama bëgg ñu gëm yàlla ànd ak yàlla ñu xam na ne yàlla rek moo fi nekk dara nekku fi donc nañu liggéey ci loolu. c'était la volonté de Tanor man loolu laa gëm wax na ko jafe na ko mu recevoir sax ñoom Bamba Fall ak ñeneen à l'époque avant muy génn àdduna il a même demandé à recevoir Barthélemy ñu gisee mais wax nañ téléphone. ak ñeneen ak ñeneen c' est de sa nañu fàtte ce qui s' est passé ku nekk il a des problèmes personnels à, à sa à sa base. mais mais est ce que tey Khalifa bu ñu ko amnistie woon tey même bu retrouvaille famille libérale euh, famille socialiste même bu dee bi amul te ñu amnistie Khalifa Sall est ce que jàppoo ne ñu baree baree bare ñu mel ne yow danañ ko dem soutenir. il s'agit pas de soutenir X wala Y il s'agit d'abord euh, de combattre un principe. principe mooy lan c'est de réussir la dernière volonté de Ousmane Tanor retrouvailles de la famille socialiste et c'est là où je lance un appel à Aminata Mbengue Ndiaye fu Tanor réussiroon na fexe ba réussir foofu balaa muy delloo lengey retrouvailles de la famille socialiste maintenant qui sera candidat en 2024 yéen rek xam en tout cas nous nous préparons la candidature socialiste pour 2024 et ça c'est et on se connaît aussi ñu ko yelloo nag lañ lañ koy jox on ne donnera jamais une candidature à des opportunistes qui ont décidé délibérément d'accompagner Macky Sall dans son troisième mandat qui ont décidé délibérément d'accompagner Macky Sall à détruire le parti socialiste à détruire la base socialiste et à détruire certains responsables. mais mais Macky ñooñu nañu xam ne xam nañ leen ràññee rañee nañ leen ciblé nañ leen et le moment venu ils paieront les pots cachés donc je répète nous avons des jeunes aujourd'hui qui se battent pour le parti. des jeunes qui ont de l'ambition j'ai cité quelques exemples ici ku mel ni Ali Mané qui est le président du conseil départemental c'est un c'est un jeune engagé lu mu am yëpp jox na ko parti bi ku mel ni Ablaye Wilane lu mu am yëpp jox na ko parti Ablaye n'a même pas une maison à Dakar pour donner formation ku mel ni le jeune Alpha Bayla Guèye ku mel ni Karim Meng ça c'est des gens de ma génération c'est des gens qui se donnent corps et âme Aujourd'hui, Khalifa, il avait gagné les maires en 2014. Aujourd'hui, il a combien de députés Il a 14 députés, comme Socialiste. L'histoire ne lui donne pas raison Si. On peut continuer à dire que Khalifa ne, ne, représente Il faut être démagogue pour dire que le gars ne représente rien. la capitale. Aujourd'hui. Mais ça, c'est extraordinaire. Ton coup, mais Mais récupère. C'est une chance là, ça, une C'est une chance pour nous. Rëkkib avec tout ñu mën si siddal nii yëpp ñu ànd bokk benn par solis xëjuñu ci kenn xëjuñu ci kenn bu ñu àndee nekk benn rek xëjuñu ci kenn. mais est-ce que président Macky Sall comme ni ko ni ñi xamee diviser pour mieux régner est-ce que xàjjaliwul bopp bopp parti socialiste ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw est-ce que Macky Sall féewalewu leen. mais loolu la def <laughs> Macky Sall il est toujours dans ça il dans ça diviser pour régner si la mos a dëkk. je pense qu'il est temps que les camarades socialistes se ressaisissent. Nous avons des hommes de valeur, nous avons des hommes intelligents, nous avons des hommes intègres dans ce parti. On connaît le Sénégal, nous avons une implantation nationale. Et c'est ce que Khalifa profite. Khalifa profite de cette implantation nationale-là. Il profite de, ses bases, de cette base politique. Frustration, les camarades socialistes accumulés. Nous, nous avons élections locales, élections législatives passées. Ils, parce qu'il ne se retrouve pas dans il ne se retrouvait pas dans le Benno Bokk Yaakaar il se retrouvait dans le Yewwi Askan Wi à travers l'image de Khalifa Sall et de Barthélémy Dias loolu mooy dëgg dama ne beaucoup de hauts responsables même ont voté Yewwi Yewwi du Parti socialiste parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans le Benno tu t'imagines Abdou on va à des investitures IRAS produit un document on demande un consensus avant ñu dem si investiture ñu la neex on prend un sec-sec qui est de Ndindy jël ko liste nationale liste nationale lañ ko investir depuis 2018 sec-sec est investi à la ay liste nationale a quel titre fan la ko teg alors que la liste nationale et prévue pour les jeunes on aurait waroon nañ jël benn jeune ñu def ko à la liste nationale il était même positionné avant même la responsable des jeunes filles Cheikh Seck est plus valeureux que les autres responsables d'union régionale qui sont à la base qui se battent et qui gagnent ces loolu du xam nga ñu mel ni ñooñu yëpp gëmuñu dara gëmuñu parti bi tu vois tu prends ku mel ni Aïda Sow Diawara depuis combien de, de, de il est toujours à l'Assemblée nationale mais il aurait pu la jeune fii di département de Guédiawaye comme suppléante même au moins mais dara tu vois donc si les gens qui sont ne sont là que pour leurs intérêts personnels donc lu ñuy reprocher Serigne Mbaye nañ ko reprocher seen bopp aussi ñoom aussi ils ont des fautes ils sont responsables lu ñu reprocher Serigne Mbaye nañ ko reprocher seen bopp. d'accord léegi euh, Sarkozy AGCT bi ñu dénk euh, Aminata Mbengue Ndiaye euh, dafa am ñu doon wax ne président Macky Sall daf ko bëgg a dindi tey bu ko dindi woon tey est-ce que nag jàppoon ne loolu mooy gën a gaawal tàqali ko Benno ak Parti socialiste. mooy lu ma wax sànq rek Abdou Khadre man euh, dama nekk ci ay principe dama ne lu gënoon ci Parsolis lu gënoon ci Parsolis ak lu ñu gënaloon ñun Iras c'est que parti bi génn bokkoo bennoo bokk yaakaar. Ah, ok. tout le monde. yoral cinq ministres dix ministres ñu génn génnoo bokk yaakaar ñu defaraat suñu parti. loolu rek mooy issue heureuse pour le parti socialiste bu ñu ko deful nag. mais courage politique boobu kan moo ko mën a jël. mais malheureusement Iras Iras est dans dans ce combat Iras dans cette logique. mais est-ce que dañ leen fekk si. mais bien sûr ñu bari fekk si nañu. ñu bari membre du secrétariat national membre du bureau politique Iras la ma total part total totalité des membre de Iras c'est des membres du bureau politique et du secrétariat national. amul benn instance bu am courage dénoncer boobu loolu yaa ngi moo ko def. on a des responsables d'union régionale on a des responsables de coordination on a des responsables du du du du SEN donc des cadres. waaw mais bu ngeen amee courage politique boobu bu ko Alioune Ndoye amul. wala Serigne Mbaye Thiam wala Aminata Mbengue Ndiaye dafay poser problème. xam nga euh, il faut quand même reconnaître que Aminata Mbengue Ndiaye n'est pas omnubilée par des postes loolu xam naa ko ci moom tuuti si lu ma jot a ci lu ma ko jot a xam sama génération yëpp. amul kenn ku ma gën a xam Amine Tameng c'est ma maman elle est en maman seet si na ma plusieurs fois Kolda à travers ses tournées Amine tam ñëw Kolda te eggul sama kër kon xam nga ne xam naa ko tuuti si ça ne dépendait Aminta tey ñu ngi defaraat parti bi ñëpp ñëwaat nañu toog ñu waxtaan si ça ne dépendait qu'elle avant muy dem France xoolaat yaramam discuter nañu man ak moom. keroog j'ai fait trois heures d'horloge kër Aminta Mbengue trois heures d'horloge dama ñëw rek xam nga moom dafa yaram bi dafa dàng dafa ñu dafa attaqué d'abord attaqué métti mais ñu discuter ba fa laa mujjee reer sax këram ba tombé d'accord ci principe ma xamal ko ne ñun lu ñu def nii c'est pas contre ta personne mais c'est pour l'intérêt du parti bu ma fay dem dama woote témoin mu seede mu toog ñu waxtaan mu xamal ma lu bari s'il la compris ne kii y a parti moo ko ñor maintenant comme elle assure l'intérim l'intérim intime dafa am fin nañ ko jàppale nañ ko jàppale encadré ko ñu dem à un congrès extraordinaire c'est prévu par les textes ñu dem congrès extraordinaire ñu fal un jeune secretaire général du parti socialiste à l'image de Ousmane Sonko à l'image de de Déthié Fall à l'image de de de de de Thierno Bocoum à l'image des jeunes war nga jàpp ne léegi jeune daf si am solo. dafa am solo c'est fondamental tous les autres yi de soixante dix ans soixante ans mais nañ dem daal la cellule des sages encadré ñu conseillé ñu accompagné ñu. mais ni nga si wax ne Aminata Mbengue Ndiaye est-ce que waxtaan nga ci ak ku ci mel ni Serigne Mbaye Thiam wala Alioune Ndoye. ci lan. ci yii euh, ngeen waxtaan ak Aminata Mbengue Ndiaye pour ñoom pour pour parti si génn ci biir Benno Bokk Yaakaar. non non waxtaanu ma ci waxtaanu ci ak Alioune Ndoye. ñaari nit ñaari responsable laa ci waxtaan Serigne Mbaye Thiam ak Aminata Mbengue Ndiaye. Serigne Serigne Mbaye Thiam waxtaan nañ ci lu bëri bëri bëri bëri. ci l'avenir du parti waxtaan nañu bari daal en tout cas si l'avenir du parti. am na lu ma wax am na lu ma ko tontu am na lu ñu échangé man ak moom pendant lui aussi deux heures d'horloge c'était un dimanche këram fii waxtaan nañu mais euh, nee naa la si j'avais des conseils à lui donner je leur ai demandé ne pas. de ne pas, pour son avenir politique et pour la stabilité du parti, de ne pas rentrer dans le gouvernement de Macky Sall. Ne pour les 15 mois qui restent. mais mais parce que moom dafa am c'est-à-dire dafa am dafa am maanaam euh, dafa am lu mu sekk ak dafa am lu ko Tanor dénk par respect à la mémoire de Tanor kenn waru ci waru jiitu si retrouvailles de la famille socialiste par respect à la mémoire de Tanor kenn waruloon jiitu Serigne Mbaye Thiam Euh, vraiment pour la reconstruction di parti pour élec pour aller pour élection 2024 loolu la gëm loolu laa gëm te loolu mooy teg maintenant man awma benn problème personnel ak moom man principe lay défendre je ne suis pas dans l'urbanisme aussi l'arbinisme je ne suis pas dans l'opportunisme maintenant ceux-là qui qui qui qui qui, qui l'encouragent et qui l'accompagnent xam nga c'est les intérêts ils ne sont avec Serigne Ndiaye Thiam que pour conserver leurs intérêts mais gëmuñu ko sax gëmuñu ko. mais IRAS ma ngi koy xeex di si def ay séminaire ay démarches. Mm-hmm. mais est-ce que jàpp ngeen ne di ngeen ko réussir. incha allah dañ koy réussir bu baax a baax a baax. et c'est bi ak euh, c'est l'occasion d'ailleurs de réussir de de remercier des camarades engagés au sein de IRAS des camarades engagés sans réserve des camarades engagés avec désintéressement. je les cite notamment c'est le camarade Birahim Camara de de Paris c'est le camarade Idrissa Ndiaye c'est le professeur Issa Samb c'est le jeune Amadou Sow donc tant d'autres voilà des gens engagés sans réserve pour l'intérêt général du Parti ñooñu gisuma ku leen mënta convaincre corrompre bu ñu dévier ci lu ñu ci lu ñu nekk y en a tant d'autres les jeunes ñox les les les les les Ben Cissé ñeneen on est ma si cité sax juum. d'accord léegi si Sarkozy euh, président Macky Sall teg na gouvernement bu yees euh, pour saafara jafe-jafe yi askan wi dund est-ce jàpp nga ni fii ak li ko fi desee saafara mën na fi am. xam nga yenn termes yi Macky Sall n'a pas une culture d'homme d'État yenn termes yi. quand tu es euh, au sommet de l'État doo mm. utiliser ay fast track ay gouvernement de combat ay gouvernement gouvernement d'attaque c'est des termes à éviter nous on est des on a fait quand même 40 ans dans ce pays moi j'ai pas vécu ces 40 ans mais j'ai vécu au moins une partie quand le quand le PS au pouvoir et nous avons eu la chance aussi de faire l'école du Parti socialiste ça c'est une chance il y a de ces termes cest à c'est pas bon combat par rapport à quoi combat par rapport à qui est-ce qu'ils sont na utiliser ces termes là gouvernement d'attaque gouvernement combat wacaaca je ne sais quoi là du n'importe quoi des termes tellement vulgaires ah ngay taxaw di fecc fii di mbaras di mbaras di n'importe quoi mais tu personne depuis que Senghor est dans le pays personne n'a jamais vu Senghor danser wala Abdou Ils peuvent le faire en privé, mais pas en public. Tu vois maa waxoon waxeet lu wax waxeet laa surtout te dis des choses di fait le contraire le lendemain ces termes nii oui nii non mais un chef d'État tu dois pas rentrer dans ces détails tu préfères ne moi je je conseille ne même pas répondre à cette question là mais que de dire nii oui nii oui non alors que tu sais que c'est non c'est non c'est non. si il veut faire le oui là. les Sénégalais disent c'est non. xam na ne sa candidature elle est non. d'abord elle sera combattue au sein de l'APR. d'abord elle sera combattue au sein. de Benno de Benno Bokk Yaakaar est les Sénégalais dans l'unanimité se préparent pour combattre cette candidature cette troisième candidature là moom xam na loolu. Hmm. la rue ou dans les urnes. absolument absolument je leur ai conseillé nag qu'ils que ça soit dans les urnes. Mais si il insiste, je pense que c'est la rue qui va, qui va régler ce problème. Et je ne le souhaite pas pour le Sénégal. Et lui, il ne doit pas le souhaiter pour le Sénégal. Le, soir, le Sénégal ne doit pas le mériter venant de lui. Donc Macky Sall doit marquer son histoire. Macky Sall doit marquer vraiment son existence à, euh, au sein de cet État. En, en rendant tranquillement le tablier. Senghor si jàmm la fi jóge dem yoonam Abdou jóge na si jàmm ba remercier féliciter son dafa Abdou Abdoulaye Wade la même chose moom na fexe il n'a qu'à se débrouiller à ne pas faire moins que ses prédécesseurs et ça c'est important dans un État donc loolu je pense que lu am solo la c'est des conseils que je donne au président d'accord merci euh, euh, alors, euh, vraiment encore loo si bëgg a yokk lu ma la laaj lu ma ci bëgg a yokk mooy le parti socialiste mhm. Abdou Khadre si ba léegi ñu ngi ci parti bi c'est parce que parti bi moo ñu ñor moom la ñu bëgg. Mhm. on a d'autres opportunités ailleurs. on a des propositions on a eu des propositions ailleurs mais on est resté digne on est resté nous-mêmes pour ñun le combat c'est dans le parti pas ailleurs. et c'est ce que d'ailleurs je reproche aux autres qui sont partis man dama leen di wax suba il fallait rester dans le parti mener le combat mais ku mel nii par exemple beaucoup de cadres ils auront tous partir dem seen yoon mais ils ont rest ils ont pensé rester au mu ne la combat bu ñu ko réussir alhamdulilah c'est pour l'avenir du parti et c'est pour l'intérêt général du parti bu ñu ko réussir nag xam nañu aussi lu ñuy def parce que du ñu leen bàyyi parti bi ñu tas parti bi. donc merci. merci. jërëjëf euh, Boubacar euh, Baldé euh, Sarkozy yow yaa nekk coordonnateur IRAS initiative de réflexion et d'action socialiste mbokk yi moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw ngeen jëf jàmm ak jàmm.